da ngay peser nit ñi mën la respecter. d' accord léegi maître dañuy <laughs> delluwaat si ni ñu bëggoon doxalee euh, émission bi euh, le 21 septembre si lañ defoon suñu première émission defe naa bokk na si émission yi nga njëkk def wala bi nga njëkk def mais diggante septembre ak tey jii euh, motagul motagul at ñu gis ne mbir mi dafa gaaw ndax xaaroon nga ne fii at quelques mois di nga am ampleur bii nii si wàllum si wàllum politique. bon mënu ma ne xaaroon naa ko mënuma ne sax ampleur am na c'est vrai que euh, comme li nga wax yow yaa ma rappelé date bi sax mais c'était je pense que c'était au mois de septembre. fii moo nekkoon sama première émission. Mhm. Mm, diggante bi j'ai fait beaucoup de plateaux. au-delà des plateaux man je pense que li ëpp solo mooy les activités politiques yi nga xam ne moom la ñuy mener sur le terrain parce que médias yi juste pour dem communiquer rek la. Mhm. mais li ëpp solo mooy la base lan ngay liggéey après communiquer ko dans les médias mais bu fekkee am na lu ñu ñu jàpp ne lu salutaire la wala lu rafet la je pense que. Pastef nañ ko war a remercier parce que Pastef mooy ñi nga mooy parti bi nga xam ne moo initié beneen façon bu ñuy defee politique Sénégal mooy li ñu yàgg wax une opposition documentée et argumentée benn ñaareel bi mooy Pastef mooy parti bu tijjeeku boo xamante ne à chaque fois dañuy identifier ay profil di leen yóbbu donc euh, devant la scène médiatique ñi communiquer ak sénégalais yi ñu ci bëri ci sénégalais yi di ci am fierté di ci am di ci am kontaan di ci am satisfaction boo xamante ne c'est une satisfaction bu ñuy manifester partout donc bu fekkee am na lu ñu ñi gis ne lu rafet la wala lu baax la ci communication nañu jàpp ne le mérite revient hmm. à Pastef les patriotes et notamment au secrétariat national à communication donc bi nga xam ne El Malick moo ko jiite. et qui fait un bon travail. d' accord ampleur li tax mu utiliser ko amaana bu ñuy duggee si biir émission bu baax a baax dina dina leeral la moo tax mu utiliser baatu ampleur euh, mais sa engagement politique. Euh, parce que aussi euh, ndaw nga euh, di doogaa dugg ci administration ndax bii mooy sa administration sa mm, sa engagement politique bu njëkk walla ndax jotoon nga militer si benn parti politique doogaa tàbbi ci Pastef bon xam nga engagement politique y a deux façons. Mm-hmm. dafa am engagement politique boo xam ne se non partisan. Mm-hmm. c'est-à-dire les questions de politique publique daf lay ñor. je pense que loolu depuis 2015 maa ngi koy def c'est-à-dire depuis 2015 néew na ci Sénégal ay marches yu ñu fi yu ñu yu ñu autorisé comme yu ñu autorisé wul yoo xam ne participé wu ma ci. notamment ay marches c'était les marches contre le franc CFA. Mm-hmm. marche bi nga xam ne dañu doon ñaawlu Charlie Hebdo li fa xewoon. Euh, caricature yu ñu defoon ci yonent bi. Mhm. loolu janvier la woon. Mhm. donc boobu laa mu commencé am une conscience politique boo xam ne xale laa boobu. mais maa ngi commencé gëstu ci politique bu c'est un engagement politique parce que lan lépp lu xew sa réew acteur nga yaa ngi suivre de très près te lépp lu ci wàcc lu ci war taxawaay ci mbedd bi di ko def. Mhm. maintenant l'engagement politique partisan moom Pastef la commencé. très jeune quand j'ai commencé à ci laa épousé donc son projet en 2017 lors des législatives ma jàppale ko sama koñ ñi ma xam. boobu yaa ngi université wala nekkoo boobu j'étais en licence 3. d'accord donc mais comme je devais terminer ma licence maa ngi woon di préparer benn mémoire ak benn rapport de stage donc j'étais très occupé mais dama doon jël photo am di envoyer ñi ma xam samay connaissances j'avais même demande à des personnes jox ma flyers ma ñëw euh, distribuer ko et cetera bi législative yi jàllee nag fekk man pare naa sama licence. j'ai pris la décision de m'engager à Pastef donc depuis 2017 laa nekk à Pastef di militer en tant que militant donc loolu li muy wane mooy mhm. au-delà de ñu ngeen gis ci plateau yi xam nga man yaa ngi wax ne 2022 septembre 2022 nga may doog a découvrir mhm. Mhm. ñu bëri ci sénégalais yi il y a mois 4 mois nañu ma découvrir mais li ëpp solo mooy Pastef juróomi at yi juróom wala juróom benn at yi ma fa nekk est maa ngi doon liggéey wala liggéeyuma te partout au Sénégal il y a des militants qui font de la politique de façon désintéressée xam ne danga leen di gis ñi ay profil yoo xam ne am nañ compétence bi am nañ expérience bi am nañ probité bi boo leen invité ñu dem ci média ñoom ñooy bañ moo tax le frère Ousseynou li a l'habitude de dire Pastef ñiy dem ci plateau yi ñun ñooy saraxu Pastef et comme ça que ça se passe c'est-à-dire il y a mm-hmm. des militants qui font un excellent travail bi ñuy abattre à la base soxlawuñu fuir derrière derrière les caméras ou derrière les journalistes mais li ñuy liggéey ñu ngi koy def la base ba léegi nii mm-hmm. abandonné wu ma sama activité de militant à la base démb rek maa ngi woon Grand Yoff def samay activité mais mm-hmm. au delà de Grand Yoff département Dakar bi nga xam ne fii nekk mm-hmm. ak sur le plan national fépp fu ñu ma invité je fais mon activité politique parce que dafa bëgg a rompre benn façon def politique boo xam ne Sénégal mm-hmm. da ngay bàyyi ba élection ñëw nga dem ne Sénégalais yi xëpp leen xaalis pour ñu voter la mais ñun dañu bëgg politique nga koy def bon li tax ma adhéré Pastef bëri na mais li ci ëpp solo mooy Pastef dafa ñëw répondre à mes aspirations parce que comme li ma la wax man marche yi ma doon participer c'était des marché contre le franc CFA yu ci ëpp ou la coalition No aux APE donc euh, de façon modérée modeste man maa ngi woon ci biir di participer ci manifestation yi en tant que citoyen buy yëg ne dara xew na ma dem fa Pastef bi mu ñëwee j'ai vu un discours boo xam ne il n'est pas anti-français ou anti-occidental mais c'est un discours anti-impérialiste néewoon na wala boog mosul am un acteur politique sénégalais. Mm-hmm. amoon na sax mais de façon assumée claire clarifiée taxaw ne moom d'accordul ci franc CFA d'accordul ci APE bind ko wax ko ak yeneen question yoo xamante ne jàpp naa ne képp koo xam ne da nga bëgg a falu rek soxla lobby lobby étranger yi fal la ay puissances étrangères financières la li ci nekk ci yombal pour nga jot ci nguur. nit bàyyi fi loolu yëpp taxaw nag daal di jël ay engagement yu ferme devant le peuple sénégalais je di que li c'est la politique autrement deuxième chose mooy bi ma gëstuwee président Ousmane Sonko dama gis ci moom ñaar bi si jiitu mooy un discours politique boo xam dafa nouveau mooy nit ki buy wax ne jàng bi doxut da koy documenté wax ne lii moo tax jàng bi doxul su ne économie bi doxul day wax lan moo tax transformation structurelle de l'économie amut lan moo tax industrie amut te loolu mooy accès un e. muy benn mais nit boo xamante ne parcours am daf ci wane set ba ma duggee Pastef aussi aw ma ci déception xam nga mën nga dugg avec des vœux nobles nga dugg am ci déception mais ba ma duggee dama gis parti boo xamante ne man militant bi man maay financer le parti su ma cotisé wul à la fin du mois mille francs wala 2000 wala 5000 francs mhm. parti bi du marché Lacoste bu may sol du leader bi moo ma koy def. mën nga nekk ci parti bi quatre ans cinq ans doo mus a xam président ko sax jéem a pour xam ko. boo ko gisoon ba photo ak moom occasion la rek mais en réalité moom personne am intéressé wu la. mais li la intéressé mooy le projet moo tax parce que à chaque fois on parle de projet. te loolu moo ma dugaloon ci Pastef te loolu maa ngi gis lu ko raw ci biir. te tant que loolu mu fay def je me battrai ba dernière goutte de mon sang pour que la pour que le le projet de Pastef réussisse dans ce pays. projet bi dina si ñëw euh,